alhamdulilahi rabbil alamin walsalaatu walsalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi rawi radwani waltamkin in uridu illa alislaha ma stataat wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa noo ngi nii mboolem bokki jullit yëpp fu ñu mën a ne di nu déglu ak di seetaan gannaaw bu nu sante yàlla bàkk ko màggal ko julli ci jaamam ba tey sangu bindeef yëpp tey sëriñub seexul xadim sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñaan yàlla di dolli ngërëm di dolli ngërëmam ak i tiraangaam cantam muy dem ci seexul xadim ca fa mu tëdd ci barabam bu tedd ba bu bañ a dakk ba faw ba faaw ba faaw te yàlla taas na ci barkeem te fayal na ko di nuyu nag di ziyaara ki fi tooge jataa yëpp seexul xadiim te bëggul lu dul moom sakkuwul ngërëmul ku dul moom muy as Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan ñëpp di ñaan ñëpp di sant ñëpp liggéeyam ñaan ci moom ñëpp ànd ñaanal ko mu yàgg fi lool lool lool wér lool lool lool mboolem lim yéene ak lim mébéti liggéeyal Serigne Touba mu def ko ni mu ko bëggee ba am ci lu kawe njortam kawe njorti murid yëpp ndax murid yaa ngi sagu ci moom ñi ngi ndamu ci moom kon loolu yàlla na yàgg kàddu yi tey yi nag du gudd yu gàtt lay doon kàddu kàddu yu seere rek la jëme ko ci mbokkum jullit di mbokkum murit di mbokk muy soxna Baali sama rak doomi Sëriñ Suhaybu Sëriñ Suhaybu tudde ko maam Jaara Buso muy ko xam ne bi matee dal moo ko dalalal boppam manis na ne moo ko jàngalal boppam ndax ñi jaar ci seeni loxo seen bi yeneen jàngalal boppam ba mu àggale alxuraanam mu jàngal ko xam-xam ba xam ay farataam ci at yu néew sëriñ Abdul Ahad mi doonoon kilifa ak sëriñ Souhaïbou fab ko jox ko Cheikh Mahamadul Muntaxa ci at yu néew la heure booba fukki at ñett fukki at ak mu yóbbu ko ne ko demal liggéeyal sëñ Tuubaa foofu te boobu gone ko tuuti la ma a génn dëkk bi ñu yóbbu ko mbul kayal ci diggu bàll waaye yàlla suturaal ko ci yar biñ ko yar moo mën koo dékk lool nekk fa di liggéeyal sëriñ bi la ko fa yóbbuwoon mosu koo jaawale ak dara ba tey jii sëñ Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne it mi ngi nii di ma dégg. du ma ko waxal mukk lu mu waxut seereel na ma ngërëmam ci moom seereel ko kudul ma nit waaye li ma seereel laa saña a wax xamal na ma ne gërëm naa ko ngërëm loo xam ne sëñ Tuba rek laa koy seereel na ma taxaw boo xam ne sëriñ Tuba rek laa man xëy na matuma ci moom seere waaye nag bu ko sëñ Muntaxa mi ko Cheikh Abdoul Ahad boolee loon sante sañ naa nag béral cant googu bu jullit yëpp dégg ko murid yëpp moom nag mu yor jikko joo xam ne yàlla rek moo koy baaxeeb jaamam mooy xol bu rëy te tabe te bëgg lu baax ba fi mu ne dafa mujj nag sax naka jëkk joxe ñam dimbalee saraxe maye loolu ko xam-xam nga ko ci moom te lu mu ca def du bëgg keneen xam ko waaye dafa dem ba weesu ñam ko daa defal nag àgg ci yaatal ko ba adduna sépp di ci jot ndax ki muy liggéeyee ni toll noonu kon liggéey baa ngi tàmbalee ci biir Cheikh kër Cheikh Mouhamadou Mountakha waaye mujj na ëpp doole foofu ba dem kër Sëñ bu ak këri këri Sëñ Touba yëpp kum seqal rek teraanga la seq ak yow waaye nag ñi mat a dimbali it fàttewu leen loxo ma ngi dem ci ñoom ci sancaan yi ci way do way néew yi ñu sàkku ndimbal ba ci hôpital yi sax day dikk di leen dimbali ci ay ndimbal waaye dund it mu di ko joxe moo tax mu mujj sos benn fondation boo xam ne lu mu amate da ko ci jaarale ci fondation ba wut ñu koy tasaare di ko jox nit nga xam ne kon dafa mel ne dogu na ci du amate dara di ko denc lu mu am rek da ko yóbbu ci fondation bi ñu jox ko néew doole yi loolu nag waa Porokhane xam nañ ko xam nañ ne muy liggéey la soxna si ca daara ja xam nañ ne muy liggéey la soxna si ca ñëfa dëkk waaye ñi mu dëkkale xam nañ ko waaye sancaani ci dëkk bi yëpp xam nañ ko waaye nag loolu du yéeme du yéeme ci koo xam ne Mariama nga tudd tàmbale ko ci soxna Mariama mag ma barkeb tur woowu bu ko wuyee bu ko wuyoo war naa bare njariñ war naa mën a jaamu yàlla waaye soxna Mariama mii itam di soxna jaaratullahi ñu duppee ko bu jëlee ci man jenn jikko rek dana nangoo joxe ñam na nangoo dimbalee ndax soxna jaar ñi ko xam dëgg nee nañ jamono june day wut lu tolloog jamono joojo mu di ko béggale njabootam te njabootam mooy jullit yi fa ne yëpp bi mu nekkee ci daara ji bu dee jamonoy tàngoor day wut ndox sedd yu jafe defar ko ba mu baax di ko jox nit ñi bu dee jamonoy sedd it noonu jamono ju nekk lam laaj da ko daa defar di jox nit ñi di leen fii ci xuru Mbàkke bu ma saa dem di rooti euh, ak xab xab la ñuy wax lu rëy a loo xam ne moom dana ma ñetti paan boo ko yanoo ba jóge ci teen ba te booba da nga xëy ba ngoon doo mën a am paan <laughs> waaye bu dikkee gone yi xam nañ yërmaane yi dañ koy dañ koy gàttandu dañ koy gàttandu mu tàngal leen jox leen ko ba mu jeex mu dëppati nga xam ne mën naa am ñeenti yoon daanaka du mën a egsi ci kër gi ndax yërmaande yi waaye ñëpp xam nañ yërmaande ji ci mu xam ne buñ ko buñ ko karee rek mu jox leen ndox mi ñëpp ñëw àgg suuf mu di leen ko jox ba ndox ma jeex mu demaat nga xam ne loolaa loolaa waraloon mu sëñ sëñ bi soxla ndox mu dem dàkk dem ak fitna rek ca teen ba fa dugg ci biir hmm. ba ñu waxee sëñ Mor mu ne dara du ko ca fekk de bu dee soxna jaara dara du ko ca fekk noonu lañ ko génnee dara jotu ko hmm. kooku nag ku ko doon ci joxe ñam ak bari njëriñ ci nit ñi du yéeme hmm. waaye maamam jeneen maam ji soxna Mariama Jaxate it ku ne xamoon ni mu nekkee woon ci kër bi ci liggéey boo xam ne li góor ñiy def la daa def da daa yi di liggéeyal sëriñ bi lu góor di def da ko daa na ci sax bu masaam balaa musuur maraaxib lay fab teg fii door fa musuur gi men lu tañ laay door cee teg muuraay gi barab di jàng maraaxib di wër kër gi noonu la meloon Mariama yooyu nag yaakaar na ku leen doon lu mu néew néew loo ci am rek boo baree njariñ wala nga mën a jaamu yàlla wala nga baax du jaaxal kenn ak bàjjanam yi nag bàjjanam yi nga xam ne ci leeri sëriñ bi lañ defarug sëriñ bi lañ moom muslimatin moominatin xaanitaatin taaibatin abidatin saihatin tayyibatin wa abkaara kon nag ñooñu ku don doon boo melee nii du jaaxal kenn waaye nag noo ngi ñaan fondation bi sëñ Tuubaa teg ci loxo ba lim yéenee liggéeyal sëñ Tuubaa ci jaam ñi sëñ Tuubaa alalam jëpp mooy nit ñi ku ko gën a fonkal taali bi gën ëpp yërmande ñoom rek yàgg gënal kon nag soxna si yoon waa ngoog bu ko wàcc yàlla la sëñ Tuubaa gàttanu boppam ba li nga li nga yéenee liggéeyal Cheikh Mouhamadou Mountakha nga ànd koog moom te te gën a làq gën a làq ngërëmam ne làq nga ko sax waaye nga gën koo làq ba ci ngërëmam loolee nga am ci ngërëmul Sëñ Tuubaa mi ngi wut ak ngërëmul soxna Jaara mi ngi duppee noo ñaan taalibe bi yëpp ñaanal ko te xamee ko noonu xam ne fu ñu fondation bi dimbale ko tax a jóg social ko tax a jóg te yàlla rek tax ak liggéeyal Sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu